ñun daal suñu war mooy jàpp ci lépp boo xam ne bis bu jotee kenn du wax am lu am lu mu sooxe te nag danañ ci def lu mu man pour que service yi fi toog yëpp jël seen engagement balaa bis bu jot balaa réunion d'évaluation bi ñu ne kat ak quatre pour cent ngir kat kii la toll ndax cent pour cent moom suñu borom xewlu ko kenn mais dañ fexe ba ñëpp daal lu noonu def daaw daal lu ren di gën ko te je crois que danañ ci taxaw bis ni ki tey bu ñu génnee rek yaakaar naa suñu sos commencé mooy balaa le 28 kenn ñu wax ne kat yéen kat li ngeen waxoon engagement yi ngeen jëloon ci ci biir euh, CRD ba defaloon ci dara kon nag damay ñaax sama mbokk chef de service les chefs de service région yi xam ne ñu ngi fi teew képp ku xam ne engagement bi jël nga ko fii na nga fexe nga respecté ko ndax loolu am na ci solo lool ndax biñ commencé naan orange mu ne su fekkee ne loolu mën na nekk baax na kon nag kenn ku ne li nga wax ak date bi ñu la jox da nga fexe nga respecté ko ñu ko defee yaakaar naa coow du am ndax euh, bu fekkee da naan état bi lii boo ko war a def na sàmm ak lu muy def mu def ko yi des ñu xool nag lu ñu mën a jàppalante ak bi ak comité d'organisation def ko loolu daal laa amoon sëñ bi euh, li ma lay wax moo di di la ñetti kàddu rek la bi ci njëkk mooy di la sant ak mbooleem ñi lay jàppale ci sa ci sa liggéey cant yooyu aussi muy dem ba ci ministre de l'intérieur di dem ba ci ki nga xam ne moo di président de république mi nga xamante ne bi moom moo leen fi teg ne leen que dee leen saytu li nga xam ne muy yitte askan wi notamment li nga xam ne moo jëm ci ci màggal yi te ngeen koy def ci anam goo xam ne anam gu rafet la di sant aussi monsieur maire ci li nga xamante ne bii weesu woon na ci màggal yëpp loolu aussi nag ñu koy def ci turu ki nga xamante ne bii tey jii moo di Cheikh Mouhamadou Makhous Mbacké beneen bi également mooy fedd feddali sunu sunu yaakaar ci li nga xamante ni moom la ñu dëgmal te li nga xam ne moom la ñu fi dégg euh, dalal na sunu xel te ca dëgg-dëgg mosuñu am benn jafe-jafe ak ci wàllu organisation ak li nga xam ne moo di administration bi ak li nga xam ne moo di moo di mairie bi kon yaakaar jooju dañ koy dañ koy fetliwaat ci leen di leen xamal ne eh, lépp loo xam ne waras na ko xool saytu ko andi nañ ko wax nañ leen ko jëbbal nañ leen ko te jàpp nañ ne tont yi nga xam ne moom lañ ci war a am bu ci yàlla àndee danañ ko danañ ko am ñetteelu kàddu gi mooy ci ki nga xamante ne moo di jëmmi soxna si nga xam ne moo doon màggal euh, bis bi ak ci bi ci boppam ndax day bis boo xam ne bis bu màgg la bis boo xam ne nekkul sax loo xam ne day jar kenn di ci wax ndax bis bu dee ba alxuraan ci boppam waxal ci boppam foog naa ne euh, suñu borom moom bu xasee wax kenn amatul loo cay euh, loo cay teg te bisu alxuraan moo ko moo ko indi soxna si daañu ci liggéeyal waajuram Serigne Touba ci ndigalu ki nga xam ne moo di Serigne Fallilou te lépp loo xam ne Serigne bi waxoon na ko ca bis ba tey jii mboole adduna si teg nañ ci seen bët ba tax bis bi tey dem ba bokk ci bis yi nga xam ne ci bis yi gën a rëy ci réew mi la bokk fenn fu nekk ay jullit di fa jóge euh, rawatina taalibe yi di ñëw di ko ànd ak njabootu soxna May ngir di ko ngir di ko maggal ci na nga xamante ne bii aussi noonu la ko soxna daan defee loo xam ne ëpp na juróom fukki at mu ci ay xasida mu ci alxuraan mu ci ay mu ci ay teranga yoo xamante ay berna yoo xam ne dana ko dana ko beral jullit yi. loolu moo tax ba ñi ngi woo mboolem jullit réew yëpp. ne leen kat bis bi nga xam ne Serigne Touba da ko nangu ndax moo tax ba waxtu wu nekk muy gën di rëy di gën di màgg daaw même bu ñu ko watiwut kenn ku ne gis na nga xam ne noonu la mel. yool nga xam ne nag bis bi na ko ak yéene soxna si ak daan def loolu moom lañ yéene mboolem jullit yi ba tax ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo ngir le 28 incha allah rabbi ànd ko ak njabootu soxna si ñu def ko na xam ne noonu la ko soxna daan defee. den tafak yu dellu ko moo di mboolem jullit yi nga xam ne ñoo ne ci biir réew mi ci genn guddi gi ñoo bokk guddi gu ñu koy defee loolu aussi di yeneen tawfeex te may fàttali ne soxna bi mu fi nekkee euh, màggal gi fi mujj màggal moom mboolem jullit ni ñoo ko ñoo ko bokkoon kon loolu aussi geneen tawfeex da ci da ci da ci judduwaal bëgg dem rek suñu motaxam mi ma koy wax naa ma loolu li tawfeex la kon nag tawfeex jooju moom lañu ñu yéene mbooleem Sénégal nañu dikk ñu ànd màggal ko nañu ko daan màggale ñu dikk ci jàmm màggal ci jàmm dellu ci jàmm ñu ngi sant ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëgéen jërëjëf